asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ko noo ngi amaan mbégte toogaat ci jataay bi nga xam ne jataay sant yàlla la ci kër Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Modou moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke. ndigal li nga xam ne bàyyi ko na ci sëriñ seex moom sëriñ saalihu yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér ginnaaw bu mu yëkkatee kàddug sëriñ seex ci sant mbooleem taalibe yi ak xarit yi ak wëllëri yi nga xam ne ay soppey sëriñ saalihu lañ di ay xariti sëriñ saalihu di ay taalibey sëriñ saalihu tey liggéeyal yàlla waxtu wu ne ci boo xam ne ndigal bàyyi ko na ci kër sëriñ saalihu jëm ci ñoom rawatina bokk yi nga xam ne ñoom la ñu bëgg a tudd sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant ci weesu yëpp te leen di tàllalaat loxo nag ci yi ñu dëgmal muy liggéey bi nga xam ne at mu jot ñoom baaxoo nañ di ko liggéeyal yàlla ca tool yi nga xam ne moo nekk ca Daaru Salaam Maodo Murit liggéey boobu nag muy ngóobum tool ya jotaat na ñu war a woote bis bu nga xam ne ci lañ war a départ muy ajuma ji sës ci gàmmu gi dëppoog vingt deux octobre incha allahu rabbi sëriñ Abdou Lahad nag nee na ci kàddug sëriñ Cheikh mi ngi ko yëgal sëriñ Mor si ca Kura di jëwriñu liggéey bi di ko yëgal sëriñ Must am di Moustapha si. di ko yëgal sëriñ Abdou Samad si sëriñ Alhaji si Daarul Minan sëriñ Baara si Sil sëriñ Abdou Samad si. di ko yëgal sëriñ alxaaji si nekk ca daarul minan sëriñ baara si nekk ca sil sëriñ abdul xaadir si ndaam sëriñ abdul xaadir si manna sëriñ fallu si daaru nahim sëriñ basiru si daarul wahab sëriñ moorloo touba ali mbenda sëriñ maxtaarloo touba ali mbenda sëriñ mbayloo ca xaj alxaaji abdul xaadir diouf ca xaj sëriñ bamba gueye mbakke kajoor sëriñ sulay saar touba caareen ak rakkam sëriñ amdi saar sëriñ Moussa Diané Afe Thiané Diané an Anen aha sëriñ sëriñ Amdi sek Koupantoum Alhaji Ibrahima Sy Darou Salaam Cekkeen sëriñ Maas Ndiaye représentant fédération daayira Koungheul yi sëriñ Bassirou sek tuba Koungheul Alhaji Cheikh Ley représentant Khalife Général des Mourides sëriñ Bassirou Lo représentant Khalife Général des Mourides Touba sëriñ Basirou Seck Koungheul Alhaji Top Ndindi sëriñ Cheikh si Koura sëriñ daam Top Bokke Saare sëriñ Modou Mbakke Sy xalifa sëriñ Moustapha si ci Touba sëriñ Alioune Thioune directeur Africatel ak mboolem ña fay ba tey sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal sëriñ Abdoul sëriñ Fallou Sy sëriñ daara ndaamaatu sëriñ abdul xaadir si ndaamaatu sëriñ abdoulahad si ndaamaatu sëriñ mor awa si daarul minan sëriñ moodu bel jóob ca Touba di ko yëgal mbooleem koo xamante ni bii daan nga dem ca tool yi di ca liggéey wala nga am yéene dem ca liggéey boobee ci jëmbi yàlla rek tax sëriñ bi nee na ma nga la cay woo di ca tàllal loxo di xam ne liggéey yàlla rek la di ko yëgal sëriñ Cheikh si ca Kura ba tey ñu ngi ko yëgal nag bokk yi nga xam ne saa liggéey bi masaa jub ñooy génn seeni oto def ci seeni i waal yóbbu leen te yàlla rek tax sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant ca la lépp di leen tàllalaat loxo li ci li ñu dëgmal muy di transporteur yi alhaaji Mor Lo alhaaji Mor Lawa Mbeng nekk ca Kura Murit Mbaari Wilaan Kura Murit alhaaji Ibrahima Boussa Touba Koungheul alhaaji Seck ndim alhaaji Seck ndimbalaan Koungheul sëriñ Seex Ndiaye doomi Gàdd Ndiaye ca Koungheul Babacar Diagne kër Ibulum Papa Diop Lour Modou Boussa Congaan Touba Ali Mbenda Modou Samb Ribo Kujali Moustapha Ndaw Touba Ali Mbenda Omar Congaan Daarul Minan Serigne Mourtala Ndoom ci Sil Maam Amdi Samb Guy Jéeri Mamadou Ka Lour Escale Ibrahima Poman ca Bokki Saari sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal ñëpp di ca tàllal loxo ñëpp nag di xam ne liggéey bi àjjuma le 22 ginnaaw gàmm lañ ca fas yéene dem sëriñ bi nag nee na mi ngi ñaan képp koo xamante ne bii def nga ca dara lu mu tuut tuut yàlla nga dugg ci biir way wi nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa naan waqdi hawaaiji lazina daamoo fii xidmati wa hablahum maaraamoo kaddu gi mi ngi bàyyi koo ci kaddu sëriñ Abdou Lahad mbakke moom sëriñ Modou Abdou Khadir sëriñ Abdou Lahad nag nee na ginnaaw bu mu yëkkatee kaddu yi bi ba noppi nag mi ngi sof ay kaddoom di ko yëgal njabootug boppam gi nga xam ne amul lu ñoom te fu mu jëm ci seen seen doole rek dafay demee muy njabootug sëriñ Abdou Khadir Mbacke tàmbalee ci buntam nag di sëriñ Modou di sëriñ Abdoul Khadir moom sëriñ Modou moom sëriñ Abdoul Khadir jëwriñu kër gi ak mbooleem ko aju ci kër sëriñ Modou Abdoul Khadir ñëpp mi ngi leen koy yëgal di ko yëgalit mbooleem ko aju ci kër sëriñ Abdoul Khadir ak waa Mbusoobe bàyyiwul kenn di leen xamal ne liggéey boobu daal bu ko ci sëñ bi doyloo ba teg ko ci seen kanam seen jëmm ji rek a tax ndax jëmmi sëriñ Modou Abdou Khadir la te yéen la fa nekkal kon mi ngi ciy tàllal loxo ñëpp nag képp koo xam ne nag bëgg nga ab leeral ci liggéey bi bàyyi koo Saalum wala nga soxla oto ak lu mu ci man di doon mën ngaa jàkkoo ak sëriñ Abdou Khadir si numéro téléphone am 77 424 65. 78 wala nga woo Baye Dame Seye ñu gën koo miin ci Baye Pastef ci numéro téléphone am 77 341 88 54 numéro yi daal ku ci jote lépp loo bëgg ci ak leeral da nga ko ci mën a jot ñi ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di jël séentu ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.